ودادي وسوري في ترابي ومغفلي kon euh, li def mooy dañ koy jox kàddu gi ñu nuyoo su ko defee rek euh, dugg ci biir waxtaan wi kon suñu xarim ñu lay jox kàddu gi nga euh, nuyoo bu ko defee rek ñu mën a dugg ci waxtaan wi nga xamante ni bi rek moo jëm ci foto yi بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت علام الغيوب mbokki jullit yi ñuy seetaan yëpp ñu leen di nuyu ci nuyoo bu lislaam bu tedd bu màgg bi di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mu mel ni kon ñu continuer waat liggéey bi rek euh, ñu jeexale woon ci wàllu faatu xam naa dinañ ko àggale waat sax ci jamono ji di ñëw ndax am na yu bari yuñ ci waroon jàngalante waat suñ biir waaye mbokk yi ñaan nañ ñu lu duggaat ci ñoom julli ndax itte woo nañ ko lool mu mel ni day nekk benn genre séminaire bu ñu ko séenee def pour jàngale buntu julli li ñuy wax albaabu saani mooy buntu ñaareel bi ci jawhar nafis te Cheikhul Khadim tënkoon ko moom lañ fas yéene commencé jàngal ko mbokki jul bi ñuy diglu yépp te ni mu ko tënke noonu yi laxdar yu a ko tënke kon ñëpp ko bokk mu mel ni buntu ñaareel boobu nag mooy buntu bi gën a jafe ci wàllu fiq muy réparé julli daa nañ ko fi jàngale waaye lu baax du doy mu mel ni julli lu koy yàq yombut lu yàq julli yombut ndaxte bu fekkee dañ caa dolli mbaa nga wàññi ca lu ëpp ci ay melokaanam dees na ko mën a réparer moom julli gi moo tax sëriñ bi wax ni sunnaal nañ sunnaal nañ ñaari sujjóot ñaari sujjóot yoo xam juum ci julli moo koy waral ñaari sujjóot yooyu nag imma mu nekk njëkk ngay sëlmal bu fekkee da nga wàññi ci julli gi wala mu nekk ginnaaw boo sëlmalee ba pare bu fekkee da ngaa dolli ci julli gi wala mu nekk njëkk ngay sëlmal sax boo dollee wàññi kon jàppal ni wàññi xa dolli ba wàññi dolli xa jàppal ni ba wàññi ci julli gi xabla salaam ngay sëlmal ngay sujjoot xabla salaam mooy bi foo taslim avant sëlmal boo dollee ci julli gi nag baxda salaam ngay sujjoot baxda salaam mooy afta taslim ginnaaw sëlmal bu fekkee da dolli wàññi da ngay jàppee sa bopp ku wàññi rek nga sujjóot xabla muy bi foo ngi sëlmal kon ñett yooyu rek moo nekk imma julli gi nga yokk ci daa di sujjóot boo sëlmalee ba pare imma nga wàññi ci sujjóot avant ngay sëlmal wala nga dolli wàññi sujjóot avant ngay sëlmal kon ñaari yoon nga sujjóot avant ngay sëlmal waaye benn yoon nga sujjóot nga sujjóot boo sëlmalee muy boo dolli rek euh, moo tax sëñ ni dolli nag moom ay da ngay sujjóot ñaari daal di taayawaat ba ca abduhu wa rasuluhu daal di sëlmalaat moo mel ni boo dollee ñaari sëlmal ngay sëlmal ci julli waaye boo wàññee moom benn sëlmal rek ngay sëlmal ndax da ngay taaya ba war a sëlmal daal di bañ a sëlmal daal di sujjoot ñaari sujjoot taayawaat daal sëlmalaat lii nag suñ ko waxee kon ci ngiru imaam Maalik luñ ci jublu waaye yeneen ngir yi yu ci bari am na ci yeneen anam yu ñu koy defee ci ngiru al imaam Ahmad moom moo xam ne nga dolli moo xam ne nga wàññi ñoom xabla salaam rek la ñuy sujjoot moom njëkk ngay sëlmal rek la sujjoot ñoom kon ko def boo bokk leen ngir bul jàpp na da ngeen a bokk njiit rek moo ko waral eh, mu wax ni ku fàtte sujjóot xabla salaam nag xabla salaam maanaam bu fekkee nga wàññi ci julli gi lu wax tax nga war a sujjóot boo ko fàttee ba génn jàkka ji wala nga toog ab biir bu xaw a yàgg lu doon loolu ñetti minute wala ñeenti minute nee na julli gi yàqu kon bu fekkee nga wàññi ci julli gi bu fekkee nga wàññi ci julli gi lu man ñetti sunna lu man ñetti sunna fàtte koo sujjootal ba génn jàkka ji wala nga toog ab diir ba waxtaan fa lu xaw yàgg tuuti rek nee na jàppal ne julli gi yàqu na ndax sujjóot xabla salaam dafa am doole am doole yoo xamante ni nii eh, bu yàggee tuuti rek julli gi la yàqu waaye bu dee ba'da salaam rek xam ne yaa yokkoon ci julli gi te xamoon xam ngeen ni yokk ci julli gi eh, li fekk ci julli gi lu ni moom rek julli gi yàqoogut mën nga koo réparé boo yokkee ci timis ñaari rakka man nga koo réparé yàquwut boo ci yokkee ñetti rakka nag julli gi yàqu na ndax yokk nga ci lu ni moom julli tisbaar wala takkusaan wala gee boo ci yokkut lu tolloog ñeent rakka julli gi mu ngi baax ba tey waaye boo ci yokkee ñeent rakka jëm kaw rek xamal ne julli gi baaxatu ko mënee su ko tee réparé mënee su mënee su mënee su ko mënee su ko tee mënee soo su ko réparé ti kon su ko defee kon bu fekkee julli gi baax de salaam nga waroon a sujjóot maanaam nga yokk julli gi lu ci bokkut woon war ko sujjóotal te sujjóotoo ko nee na sujjóot boobu du yàqu mukk heure boobu fàttalikoo rek mën nga koo fay maanaam wala walaw min baxdi ahwaam doonte da ngaa toog ma mat fukki at fàttaliku ni julli nga ma julli woon kat ca New York ndekete yokkoon naa ca lu ca bokkut woon da ngay daal di dem sujjóot kat mu gën a gaawee fan ko fàttalikoo kon foofu la wuute ak ba xabla salaam xabla salaam moom mooy njëkk sëlmal bu fekkee ñetti sunna ku moo ko waraloon moom mënoo koo sujjóotal bu fekkee julli gi toogaan nga ab biir bu xaw yàgg ndax julli gi day yàqu boobaa mu wax ni kon li tax ñuy sujjóot nag mooy bàyyi ñaari sunna bàyyi ñaari sunna jëm kaw maanaam ci julli gi boo bàyyee ñaari sunna jëm kaw julli gi yàpp julli gi da ko war a sujootal boo sujootu julli gi day yàpp bu boobaa kooku mooy cosaanu sujoot ñaari sunna jëm kaw mu wax ne farata nag moom kenn mënu koo defar lu da koy indiwaat kon bu fekkee da ngaa bàyyi farata ci julli gi mënoo koo defaraat mënoo koo réparé faaw ga indiwaat farata bi nañ la la jàngal nu ñu koy indiwaatee ci misaal ñi nga xam te ne bu ñu julli buñ su buñ sukkeerul koo duñ jógaat dañuy continuer rek suñ tubaa bàyyi nañ farata ginnaaw ba ñàkkee tegin ak suñ seen borom ba tax jóguñ ci sujjóot wala rukkoo ba bàyyi nañ farata julli ga da dootul baax ak li fekk indiwuñ ci farata googa am nañu wax nañ koy defaree mooy bu boobaa da ngay sànni rakk boobu indi beneen rakk bu bees rottee ko loolu dañ ci bu soobee suñu borom kon li tax ñuy sujjóot kon mooy bàyyi benn su bàyyi ñaari sunna wala lu ko ëpp bàyyi ñaari sunna wala lu ko ëpp farata moom kenn du ko sujjóotal da nga koy indiwaat rek fa saasa farata moom bu yàqoo da nga koy indiwaat waaye mëneesu koo sujjootal ndax sujjoot attanut farata ni ki noonu ngëneel ngëneel moom mooy loo xam ne ko sopp comme lu mel ni xunóot moom deesu ko sujjootal boo ko bàyyee da ngay continuer julli gi rek ndax julli gi yàqul boobaa lu mel ni sujjoot lu mel ni xunóot wala lu boo ko bàyyee doo ko sujjootal ndax du yàq dara ci julli gi kon ñett rek fi nekk imma muy farata moom boo ko bàyyee te indi boo ko julli gi day yàqu ndax mëneesu koo sujjootal wala muy sunna boo bàyyee ñaari sunna jëm kaw da nga koy sujjootal wala muy ngëneel ngëneel moom deesu ko sujjootal ndax amul doole duñ koy sujjootalee boo ko bàyyee dara nekk ci moom euh, su ko defee nag benn sunna xam nga ne ñaari sunna jëm kaw la ñuy sujjootal benn sunna moom deesu ko sujjootal ba mu des bérél ak yalu benn sunna deesu ko sujjootal ba mu des bérél ak yalu kon bu fekkee ci julli da bàyyi benn sunna da ngaa bàyyi benn sunna sunna boobu nga bàyyi doo ko sujootal mukk ba mu des sunna béral ak yaru la tax mooy sunna béral ak yaru dafa am doole moom moo tax moom bu fekkee benn sunna la da nga koy sujootal waaye bu fekkee beneen sunna nga bàyyi bu dul béral ak yaru moom du jar nga koy sujootal moo tax mu ne wa sunnatun waxidatun laysa sujud laha siwa sirrin wa jahrin yaa murid nee na yow ñu jàng daal yi mu sàkk lu baax yow taalib yow murid bi xamal ne benn sunna moom kenn du ko sujootal lu béral ak yaru bu fekkee nag da ngay julli fa nga waroon a béral nga yelu fa comme nga julli julli timis juum ci ñaari rakk yu njëkk yi nga jàng ko ndànk nee na boo paree da ngay sujjóot da ngay sujjóot qabla salaam ndax da ngaa wàññi da ngaa béral ngaa yellu la a béral ni ki noonu tamit bu fekkee julli tisbaar ci misaal da nga doon julli jàng ci kaw juum jàng ci kaw maanaam béral fa waroon a yellu bu boobaa it jàppal ni da ngaa dolli ci julli gi kon da ngay sujjóot kon bu fekkee fu ñu war a béral la nga yellu fa da ngaa wàññi bu fekkee fu ñu war a yaru la nga bëreel fa da ngaa yokk boo yokkee da ngay sujjóot baax de salaam mooy ginnaaw boo sëlmalee pare sujjóot yeneen ñaari sujjóot sëlmalaat bu fekkee da ngaa wàññi nga sujjóot xabla salaam mooy avant ngay daal di sëlmal julli gi daal di réparé bunt bii ñu farataal ko wala boog ñu sopp ko ñu sunnaal ko mooy xeex la ak saytaane ndax bu fekkee da ngaa julli gi rek gaaw bàyyi julli gi dem julliwaat geneen julli day mel ni saytaane da laa mën ci julli gi ma doon def waaye da xeex ak moom moo tax irgaamun li shaytaan forcé saytaane la naqaral ko wan ko ni yaa ngi jéem a yàq sama julli gi waaye yonent bi wan na ma yoon waxam xam moom laay wottee julli gi ba du yàqu bu soobee suñu borom. niki noonu euh, sëñ bi nee na bu fekkee da ngaa wax ci julli te tey ko bu fekkee da ngaa wax ci julli te dayoo ko nee na da nga koy sujjootal da nga koy sujjootal bu fekkee nag yaa ko tey moom julli ga yàqu na kon boo waxee ci tey ko julli ga yàqu na boo ko teyut nag moom da ngay sujjootal julli gi rek dara ci nekk. comme ci misaal nga doon julli nit fekk la ngay julli mu ne ndax da ngay julli nga ne ko waaw te fekk teyoo bu boobaa da ngay sujjoot baax de salaam maanaam da ngay sëlmal ngay bàyyi ba sëlmal ba pare julli gi daal di sujjoot yan ñaari sujjoot daal di taayawaat daal di sëlmalaat julli gi daal di baax te wax jooju dootu ci feeñati bu boobaa tax na ngaa dolli kon ku fekk nag da ngaa julli di julli mel ni tisbaar ci misaal di julli mel ni tisbaar julli ñaar rakk rek daal di sëlmal ñu ne sëñ bi kat ñaari ràkk rakk nga julli sëlmal bu boobaa dolli yeneen ñaar rakka jógal nga àggale yeneen ñaar rakka yi desoon boo paree nga sujjoot ba'da salaam ginnaaw boo sëlmalee ndax dangaa yokk ci julli gi ndax li nga yokk moo lan la mooy boobu nga yokk ci sëlmal gi nga sëlmal diggante boobu nga taxaw doon dolli ñaar rakka yi kon loolu ak yokk la moo tax ngay sujjootaat ba'da salaam maanaam ginnaaw boo sëlmalee euh, ku yokk ñaari ràkk tamit walla benn rakka am ngay julli yokk ci yeneen ñaari rakka julli tisbaar boo ci ñu toll rek bu boobaa sujjóot dalay mën nga koo sujjóot waaye boo ci xasee yokku lu ñu toll julli gi yàqu na timis boo ci yokkee ñetti rakka mu juróom benn julli gi yàqu na bu boobaa mënoo ko sujjóot la ci yokkee ñeenti rakka wala timis gee boo ci yokkee ñeenti rakka julli gi yàqu kon julli gi daal li fekk yokkoo ci lu ñu toll rek julli gi mën nga ko réparer bu boobaa dara nekku ca nee na bu fekkee ne dangaa sikk sàkka ndax julli gi mat na wala matut ndax julli gi mat na wala matut ci misaal nga nekk ci benn rakka naan man kat ndax ci rakkab ñetteel laa nekk wala bu ñeenteel nee na jàppal ni ci bu ñetteel nga nekk jàppal li gën a tuuti daal di dolli beneen rakka boo paree nga sujjóot ba'da salaam ndax naa am yokkoon nga ci julli ci bokkut ndax mën naa am yokkoon nga ci julli gi du ci bokkut nee na bu fekkee da ngay julli ba mu pare di sikk sàkk ndax sëlmal nga wala sëlmaloo di sikk sàkk ndax sëlmal nga wala sëlmaloo nee na bu fekkee yàggut gaawal sëlmal nu mu gaawee nee na gaawal sëlmal booy sikk sàkk ndax di rek gaawal ne asalaamaaleykum rek julli gi daal di pare bu fekkee toog nga ab diir bu yàgg nag nee na julli gi yàqu na boobaa nee na boobaa day yàqu kon sëlmal foo sikk sàkkaar rek gaawal def ko nu mu gën a gaawee boo ko defut rek bu amee ab diir julli gi day yàqu bu boobaa bu fekkee nag kuy sikki sàkka lu baree baree bari mel ni góor gi sàmb nga xam ne day sikki sàkk fu mu toll rek muy sikki sàkka dañ koy wax ne ko sikki sàkka sikki sàkka sikki sàkka soosu ngay def maanaam euh, jax-jax gi sànni ko jàppal ni xewut jàppal ni dara xewut nga def li sa xel rek rek jàppal ni dara xewut bu boobaa te su jooju la war ndax looy sikki sàkka doo su sikki sàkka léegi mooy cosaan ci yow moo tax comme mooy cosaan ci yow rek baalees na la ko kon ki ñu dut baal sikki sàkka mooy ki nga xam te ne du cosaan ci gaar ko benn yoon wala ay yoon bu boobaa moom la ñuy digal mu sujjóot waaye nga xam ne moom toujours moom day sikki sàkka kooku moom bu boobaa la muy sikki sàkka du ci du ko xel day jàpp ni nii sikki sàkka bi amut day jàpp sàkka bi amut waaye nag moom mi sikki sàkka nag bis bu set saa yu jullee ba pare bu sikki sàkka rek na sujjóot ba'da salaam si sikki sàkka rek sopp nañ ci moom Moussa Diop Daara Salaam bu ñu nee sopp nañ ko mooy nekkul lu war ci moom waaye luñ sopp la nekkul lu war ci moom waaye luñ sopp la. nit ki noonu nee na bu fekkee yow tudd yonent bi sallallahu alayhi wa nga julli ci moom nga ni sallallahu alayhi wa sallam nee na dara ci ndax baat yooyu dafa am ci biir julli gi. ni ki noonu tamit bu fekkee nit dafa nuyoo dafa tisli wa daal di wax alhamdulillah nga nekk ko yarhamukallah nee na bu boobaa dara nekku ci wala yow nga tis ni wax alhamdulilah nee bu boobaa dara nekku ci ndax baat yooyu am na ci biir julli gi kon kon boo seetloo baat yi am ci biir julli gi kon deesu ko sujootal ndax da cee am moo tax deesu ko sujootal ndax da cee am ñu bàyyiwaat xel foofu bu baax a baax suñu mbokk jullit yi ñu bàyyi yenn ti nga xam ne ay teggin la yoo xam te ne lislaam da koo bëgg sa doom tis li ci sa kanam nga an ko bless you kooku du teggini lislaam lislaam li mu wax mooy jàngal ko mu wax alhamdulilah nga wax ko yarhamukallah mun la yahdikumullahu wa yuslihu baalakum waaye di jullit wala ngay ab taalibe sa doom tisli nga naan ko bless yu kooku gàcce la ab jullit waru koo ndamoo mukk ci àdduna yonente bi jàngal nañu yi nga xam ne moom lañu itteew suñ diine yonente bi jàngal nañu itteew suñ diine ñu bàyyiwaat xel tam bu baax a baax ci teggini diine yi bokk na ci naane ab ndijoor bu ngeen gisee vidéo boobu ñu def ci facebook bi nga xam te ni booy lekk càmmooñ wala nga koy naane wala nga lekk waxu bismillahi saytaane ni muy ñëwee toog ci sawet di lekk li ngay lekk di ko gàllax ndiku di ko yàbbi ci biir ndab ndab li ngay lekkaat di ko gàllax ndiku moom saytaane ci gémmiñam di ko yàbbiwaat ci ndab li nga koy lekkaat loolu rek jar di lekk di joor loolu jar tamit di jàngal sa doom yi nee nañ maanaam euh, nit mën na cee faatoo nit mën na cee faatoo ndax nooyi gi mooy aju bu ajoo ba aji ko waan nag ci ngay waxee alhamdulilah sant yàlla waaye sa doom tisli ñaan ko bless you kooku tegi ñu ko gën a moytu bu baax a baax a baax xam naa kon foofu lañ jëm tey ci buntu boobu buñ ñëwaatee bu soobee suñu borom àggalewaat ko ba buntu bi jeex rek ci wàllu julli wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa salli allahuma wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Xaadim jërëjëf ci leeral yooyu yaakaar naa ne lu am solo la ndax julli ku ne xam na ne taxawaay bi nga xamante ne bii am na ko ci ponk yi muy taxawaay bu am solo boo xam ne koy def itam war ngaa xam ci anam yam koy defee ak itam euh, war ma yu nga xamante ni bii rek war nga ko warmaal di la sant baax itam ci loolu nga wax rek mu jëm ci yar bi ak teggini ak warma gi nga xamante ni bii war nañ ko warmaal lislaam tey muy loo xam ne ci dikk bi ñu nekk dafay yaatu lool ndax loolu buñ koy seet di ko nattu di natt complexe rek lañ koy mën a tuddee complexe mooy koo xamante ni bii Euh, da ngay xeeb li nga doon euh, li nga xamante ni bii euh, da lay jëriñ sax maanaam doo ko bëgg wax wala nga koy jëfe loolu bokkul ci lislaam bokkul ci diine kon yaakaar naa ne loolu ñi nga xam ne ñi ngi teel waxtaan wi ñu koy déglu bu baax a baax nga xam ne itam ay jullit lañu te fas yéene doon leen dul ay jullit li nga xam ne nag moom mooy li nga xam ne moo koy rafetal ak lu mu ci ci aju rek loolu lépp dañ ci war a taxaw kon ñu ngi lay sant bu baax di la ci waxtaan wi kon euh, li ñuy def rek dañuy jël ñu nekk ci ligne bi su ko defee bu dee am nañu lu ñuy laajtee incha allah imaam dinañ mën ton ci loolu waaw kon ba tey numéro bi nga xamante ni bi koo xamante ni dafa bëgg déglu ci téléphone am mën woote ci 001 347 0031 401 347 0031 waaw koo xamante ni bi dafa bëgg a woote ci déglu déglu émission bi mën ngaa woote ci 401 347 00 31 34 401 347 00 31 kon dañuy jërë mbokk mi nekk ci ligne bi bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi ziar. ñu ngi doon ziar baax. waaw ñu ngi jégalu ndax bi imaam bi exemple ci biral bi ak yanu bi dama fekk may dugg ci teel bi solo mu koo dégg ndax bu ci mënoon def saa tuuti rek ñu ngi sant gërëm jërëjëf. mbaa mi jërëjëf bisimilah. bisimilah bisi bisimilah bisimilah waaw mel na kooku dem imaam kon euh, bu fekkee da ngaa bëral foo xam ne da faa waroon a yàllu ci julli gi ci misaal ngay julli ngay julli tisbaar jàng ko ci kaw nee na bu boobaa dangay ngay sujjoot wax de salaam maam ginnaaw boo sëlmalee ndax da ngaa yokk ci julli gi lu ci bokkut ndax cosaan ci julli tisbaar mooy nga jàng ko ndànk bu fekkee dangaa ngaa yellu ci julli yoo xam ne nga ko waroon biral nag lu mel ne timis nga ko doon julli far jàng ndànk wala suba nga ko doon julli far jàng ndànk wala gee bu boobaa it da ngay sujjóot xabla salaam maanaam njëkk ngay sëlmal ndax da ngaa wàññi ci julli gi ndax cosaan ci julli guddi moo ñu biral ko te biral googu boo ko defut dafa mel ne ngaa wàññi ci julli gi moo tax benn sunna it kenn du ko sujjóotal lu biral ak yàllu benn sunna kenn du ko sujjóotal lu biral ak yàllu moom la ñuy wax ci biral ak yàllu ci tontu googu bu mel ni imaam am na euh, loo xamante ni bii euh, ba rek ñu ciy sàkku ak leeral ah kon jël mbokk mi ci ligne bi bisimilah bisimilah. bisimilah waaleykum salaam wa rahmatulah. Euh, ñu waaw te ñu xamal ne ñu ñu def mooy métti la yombul jàngale yombul. Mm-hmm. te liggéey la laaj. Mm-hmm. yëpp sax dañu li ñuy def nii sax pour que vraiment nga wàññi ko baax na lool waaye même bu ko gënoon a wàññi ndax lii dafay nit lu yomb waaye yombul dafa jafe moo tax man dama doon xalaat sax ne sëñ bi sax léeg-léeg waroon leen ko war leen ko waroon leen koy xaw a noppal sax léegi bu jëlee ñaar benn semaine ñu noppal ko bu si parce que li ñuy def dafa dafa xaw a tas waaw waxoon naa ko ñun sax waaye dama koy wax ci kaw ndax daal wax dëgg yàlla seet naa ni soññ na ci mhm. ko wax te xam naa ni sax moom moo ko gënal sax ni ñu koy waaye mhm. man dama cee am yéen ma ndax damaa xam jàng ni ne la jàngale mhm. looloo tax sama wax bi jërëjëf jazaakumullah xeyran jërëjëf bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ maam maa leen ziar te ñaan sëñ Xaadim xam-xam bi rafet na lool yàlla na ko yàlla yokk waaye daa am question mu doon laaj. Mhm. Euh, dañ doon julli àjjuma. Mhm. am euh, imaam bi xutba ba noppi. Mhm. am ku am ku ñëw di tuub. nga dugg ci dina ji. ci diggante ba bi ñu xutba ba noppi nag waa ñu julli. imaam bi tuubal ko ci diggante boobu ba laaj ndax diggante boobu mën na koy tuubal dañoo war a bàyyi a bu julli ba noppi. mën naa nekk ndax ndaxte man mën naa nekk ndax usul yu nii borom xam-xam usul yi ne al amru. lil wujudi wal fawr maanaam ndigal am na ndigal yoo xam bu xasee agsi rek dafa war ñu def ko fa saasa benn boo xiyaasee importance lu mel noonu loo xam tuub sax ko ëpp importance yonente bi taxawoon na ci xutba ndax doon yàgg am ko dugg si toog mu ne ko jógal nga julli mu ne ko jógal nga julli ñaar rakka ni ki noonu am na benn bis muy xutba woon yàgg gis usay ni muy dox ci biir sàppe yi mu dagg xutba bi ñëw fop ko daal di tari aaya daal innama amwaalukum wa awlaadukum fitna gis nga de alxuraan nee seen doom yi fitna la fop fop usay ni ba pare doog a ñëw àggale ab xutbaam kon loolu li ñuy wax xiyaas ci fiq kooku ñu xiyaasee kon da ngay xam ne kon koo tuub si maanaam tuubal ko doog a def leneen da def moo gën a far taw bu fekkoon ci biir julli ngeen am dañuy julli ba pare doog ko tuubal na ci yonent bi dagg na xutba ba tàyyi ngir leneen am na beneen bis nag muy xutba ba bay si ne ko yonent bi de bekkoor am na lool ndax ba di ñaan yàlla ba muy taw muy taw ajjuma ba ajjuma muy xutba waaye waaye dellusiwaat wala keneen ku dul moom ñëwaat ni ko taw bi de dem na ba waame ne sonal nañu te nga ñaan yàlla taxawal taw bi yonent bi dajaat xutba bi ñaan yàlla taxawal bi. wallaahi ok ok ak alhamdulilah jërëjëf rafet na mu nekk tontu rafet na salaam wa rahmatulah. suñu xaalis ñoo ngi leen di jaar di jaar mm. fan lool. li ma doon laaj mooy mhm. ki nga xam ne mi ngi jiite julli bu demee ba nga xam ne kenn ci ginnaaw fabaal na ko te moom wóor ko ni juumul ndax mhm. am na sañ-sañu dagg julli bi tontu ma mu laaj ko ci làmmiñam mhm. ni ko ndax da juumuma lu mat euh, ndax war na mën na ko laaj bu fekkee ni juumul continue julli gi wala la ko mën a laaj du dagg julli bu fekkee leer na ko ni juumut nit ni ko juum nga du dagg julli gi day continuer julli bu paree mu laaj commande wala ñaari ñu maan leen ndax damaa juumoon wala déet bu fekkee nee nañ ko juumoon nga nag mu def li ñu wax bu fekkee nee nañ ko juumuñ woon nag juumoo woon nag mu continuer waaye amul droit bu fekkee moom leer na ko ne juumoon moom imaam ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn bis muy julli daal di ñuy wax zul yaday ni ñëw ni ko yonente bi dana wàññi julli wala ngaa juum yonente bi dafa wàññiwuñ julli te juumuma après mu laaj leen ndax waa ji wax na dëgg ñu ne ko wax na dëgg mu ne kon damaa juum kon loolu liñ ciy déggee mooy kon bu fekkee yaqin muy wër wër na la yow ni juumoo da ngay jàpp ne juumoo ba keroog ngay wax ba keroog ngay am preuve bu beneen da ngaa juum imaam waaye fi nga topp keneen bu fekkee leer na li ngay def noonu la. jërëjëf euh, imaam ci tontu boobu bisimilah ñu jëm ndek ñu ci ligne bi. asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi leen di dootuñu ko sax ñaanal mais dañ koy bàyyi suñu borom rek moom mu yor fay mu fayal ñu ko ci barke sama xarit yi tedd bi te macha allah dugg na ci ci waxtaan bu am solo ndax julli moom mooy mën naa ne sax def ko buy jëriñ ñàkk ko def ko buy lor mhm. man benn appel moo doon laaj mooy mhm. tey jii likkaam ba pare ba dugg ci faatiya ba commencé léegi sa xel di sikki ba xam kàbbar wala kàbbaroo loolu moo koy réparé waaw. Mhm. boo ci sikk sàkk ndax kàbbar nga wala kàbbaroo da ngay daal di kàbbar fa saasa daal di jàng faat daal yi. bu fekkee bu fekkee xam ne yaa dëkk sikk sàkk bu fekkee da nga koo dëkkee nag moom nga mhm. jàngoro jàppal ni mhm. sikk sàkk sikk sànni ko nga kon sa julli jàppal jàppal nga ko. jërëjëf. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Imaam jërëjëf dafa texte léegi di laajte ne. Euh, maanaam ngeen euh, leeral ko euh, maanaam julli gi bu fekkee ne maanaam dañ cee yokk wala dañ cee wàññi noo koy xamee mm-hmm. maanaam noo xamee ne yokk nga ci julli gi ak noo xamee ne wàññi wàññi nga ci julli gi loolu def ma ko mënu <laughs> ma ko xam ndax ci julli rek moom moo koy xam na fiqahaa yi moom li ngeen mën a leeral rek mooy boo yokkee def nangam boo wàññee def nangam waaye nooy xamee nag yokk nga am wàññi boobu mën nañ laa wax yi ngay yokk ak yi ngay wàññi nag yi ngay xam ndax yokk nga am wàññi nga koy xamal sa bopp naturellement. waaw jërëjëf xam naa kon loolu leer na ci boppam. Hmm. kon ba tey rek ñu ngi lay euh, euh, euh, waxtaan wi 212 219 965 212 219 96 95 mooy numéro jokkukaay buum bi képp koo xamante ni bii rek am na loo xam ne lënt na la incha allah boo wootee rek imaam dina la mën a tontu ci loolu kon incha allah am bisimilah. Mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. waaw waaw waaw jërëjëf xam naa dañu am tuuti ay euh, kii euh, maanaam technical problem xam naa dañuy jël mbokk mi ne ci ligne bi su ko defee suñu saal waaw dañuy jël mbokk mi ne ci bi bu ko defee ñu xool euh, rëq-rëq yooyu fu mu fu mu bàyyi ko bisimilah. moom mm-hmm. mooy kër ñuy ziar imam di ko ñaanal léegi moom ñu am solo li muy def ni ñoom yàlla fay ko guddal fanam te dafa ko yokk xam-xamam te bàyyi ko ci kanamam yàgg yàgg yàgg dama doon yokk rek ci li sama siste boobu laaj léegi bu fekkee da nga sàkk kàbbar bu jëkk bi ba nga kàbbaraat ko fa saasa ndax day waral sujjóot ndax boo ko kàbbaraatee day mel ni génnoon nga ci julli gi duggaat ci kon moo tax du waral sujjóot kon kàbbar gi sosu julli gu bees la moo tax du waral sujjóot jërëjëf imam jërëjëf ci tonto kon ba tey rek ñu fàttali ci en direct Bichri TV dañu am tuuti ay euh, euh, problème technique incha allah dinañ ko ñu ngi koy kii dinañ ko rediffuser waat ndax fi mu ngi nekk en direct nag bi incha allah bu émission bi jàll rek dinañ ko tegaat bu ko defee ñun ñëpp ñun ñëpp ñu mën ko teewlu kon ñu ngi ciy jég lu baax a baax kon ba tey rek ñu loolee euh, laaj yi euh, bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi ma ne def waaye ñu ngi leen di siyaare. waaw ñu ngi dellu nekk dafa am doon laaj allo. waaw bisimilah waaw waaw. waaw dama laaj imam ko doon laaj ne maanaam julli farata ak di wër kaaba ban moo ci gën a for daal. kooku Adama. waaw man la Adama waaw. jërëjëf jërëjëf Adama jërëjëf. baax na jërëjëf Imaam Bousso. jërëjëf jërëjëf. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi sant bu eh, boo julli boo fàtte nga julli timi ba tey julli jëwee léegi da ngay julliwaat da ngay baatuwaat lépp wala da ngay ci ngirum maar yi da ngay baamuwaat lépp. waaw ah, ok. Mm-hmm. bisimilah. bisimilah. mi laaj léegi Adama di laaj mm, julli ak wër kaaba gi julli farata ak wër kaaba gi lu ci gën julli farata moom dara yemut ak moom moom mooy farata xam naa li mu bëgg wax mooy julli sunna xëy na la bëgg a wax ak wër kaaba gi bu fekkee makka nga nekk yonent bi dafa ne at tawaafu bil bayti makka moom wër kaaba gi ak julli fa julli sunna ñoo bokk benn daraja ñoo yam moo tax sax booy nuyu kaaba gi boo seetloo doo ko nuyoo julli ci jàkka la waaye wër nga koy nuyoo moo tax kon wër kaaba gi moo gën moo moog julli naafi la ñooy bokk daraja yàlla. jërëjëf imaam ba tey rek eh, ñu jël ci mbokk yi ci ligne bi bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi leen di daal yéen daal yéen a xam di ngeen bëgg yàlla na bi. Mm. waaw suñu xaadim bi soo yàlla yàlla yokk leen wér yokk leen man lépp lu dul yàlla ngeen ko laaj defal naka laax rek ba sant jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf bisimilah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah waaw eh, man dama laaj yoo xam ne bu koy ji suba ba noppi mhm. tisbaar ak takkusaan ak timis yëpp da koy boole rek dajale ko balaa ñu julli dara boole julli yooyu yëpp daal kooku daal lu ci lu ci am wax ay mbiram daa bëgg kooku daal li Sëñ Lahad waxoon day fo te bu ba ci fan yi bàmmeel da nga xam ne mag du fo. jërëjëf. bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. allo. allo bisimilah waaw. bisimilah ñu ngi lay dégg waaw. waaw ah, ok asalaamaaleykum maa ngi seere seen xaadim di leen gërëm ci liggéey bu rafet bi nga ñu def um, léegi man dama am benn dafa am benn <coughs> kii moo bëgg laaj benn aaya bu nekk sóoratu Nisaa mm-hmm. mu nekk cent cinquante boobu laa bëggoon. sëñ Xaadim laaj na ci biir wa in min ahli kitaab illaa li yu'minu bihi wa in min ahli kitaab wa in min ahli kitaab illaa li yu'minu bihi qabla mawtihi wa yawma al-qiyaamati yakuunu alayhim shahiidan wa in min ahli kitaab illaa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawma al-qiyaamati ah. yakuunu alayhim shahiidan suñu borom day wax foofu mu ni waa ahlul kitaab ñoom ñëpp amul kenn koo xam te nii yawmal qiyaam dana jot te Isaa du ñëwaat taxaw waar la ba nga gëmaat ko an topp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa in min ahlil kitaabi amul kenn ci waa ahlul kitaab muy nasaraan yi illaa la yuminanna bihi lu day gëm sayyidina isa qabla mawtihi avant isa di faatu waaye bi liñ ci dégg mooy isa kon faatoogut kon day delsiwaat ndax yàlla da ko yëkkati woon waaye bu delsiwaatee nag avant muy faatu nag ñëpp koy gëmandoo ndax li ma njëkk def mooy day rey mbaam xoox toj kurwaa bi wax leen ni leen kat Muhammad mi laa leen topp la woon fokk ngeen toppat ko buñ toppee Muhammad ba pare nag cay doo faatu te yowmal xiyaamati yakunu alayhim shahida te bu yowmal moom isa day ñëwaat di seede di seede ñi nga xam te ne nii ñoo doon def lu baax ak xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko Ibnu Kasir tafsir aaya boobu. jërëjëf maam um, mhm. ni dafa màndi après fase soxnaam ci biir màndi bi ndax màndi bi day taab. fase day taab bi wala du taab ngir yëpp sax. maam. yaakaar naa ne loolu moom laa ne nañ. ci li nga day tàbbi ngir yëpp. mu ngoog mm-hmm. kon kon kon mu euh, euh, ñu ngi sant bu baax. waaw waaw waaw waaw kon kon kon euh, kon sëñ Saalum bisimilah. jërëjëf imaam ñu ngi siyaar bu baax te di la jot li nga xadara yi ñuy teg si bari na trop de. sëñ Modou Wade ñoom soxna maam Asou ñoom ñëpp dañu nekk dajaloo ak soxna Kine Samb ci kër Serigne Modou Wade ñu ngi lay sant di la gërëm. moom la soxna moomi seen ak sëriñ jaga seen ñoom ñëpp dajaloo di ànd ak Bichri TV bi bi jox léppam Cheikhul Khadim ba mbokki julli ji mbokki taalibe suñ xaadim ne mi ngi siyaar ñëpp li teg sa bari na waaye nañ ci jukki ñaar yooyu ba ëllëg suñ kii dem woon moom moo jur doom ji waaye ku ne xam na ni dëkk bi di doxee nee na xale bi dem na ba xam ni moom moo moom xaalis bi mm. na lim ko ciy jox daj na xale bi xeeb na ko xam na ni des na nee na jubluwu ca dara lu rut avenir am ëllëg tamit rek la waaye comme que moom dem na ba xam ko ndax yenn saa mu wàcc mu gis ko ci kanamam te moo ko moom it nee na diggante boobu la doon laaj. la ci lislaam wax lan xale mhm. bi li mu jàngale mooy anta wa maaluka li abika yow ak sa alal yëpp seen bàyyi leen moom. Mhm. sa bàyyi moom am na droit def ci lu ko neex ci sa alal mhm. mu dagan ci moom. anta wa maaluka li abika sa bàyyi moom sa alal moom lépp nga tax yàlla jox ko lépp mooy xam nga yi sa baay moo lay dundal moo lay defal lépp ba keroog ngay jot di mën sa bopp dara waaw ñu fàttaliwaat foofu ni income tax yooyu waxoon nañ ko fi daaw asaka da ciy war ndax dañ la koo dencal ak ba at te xam nga dañ ci salaam waaw ah, man de dafa am lu ma doon laajte hmm. allo waaw bismillah waaw waaw ah, parce que dama doon julli tisbaar premier rakk bi may julli ma ma moo ne yaa ngi doon déglu sànq bi jàngale wala waaw dama koy seetee nag dama dégg dama génn léegi rek. da sujjoot da sujjoot après boo sëlmalee ba pare maanaam bu baax de salaam da ngaa yokk ci julli gi. da da nga koo beral tisbaar. waaw tisbaar la da ngay bàyyi ba sëlmal. nekk ci sama ñaareelu waaw da ngay bàyyi ba sëlmal ci julli gi nga sujjoot ñaari sujjoot daal di sëlmalaat. waaw da yokk waaw. yaakaar naa ne loolu leer na euh, leer ci euh, ci ni ko imaam tonto kon ñu jël rek mbokk mi ci ligne bi bisimilah waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw maa leen di leen gërëm di leen ñaanal. alhamdulilah. dama bëggoon laal suñu biir ndax ma wax léegi income tax. moom bu nekk nit ci war nit ci yéen waa Zaka. mu de mu baam ci waat rek ngeen jégal ma. xam nga lislaam dafa wax ni jëpp alal joo xam te nii. fa nekk xam nga ni yaa ko moom ca dañ nga ci jot at teb bor lay doon te boo doon génnee asaka tey jii ki la yoreel bor tam leer lan kii dana la fay bor bi asaka jooju da nga koy boolewaale ci biir bor boobu da nga koy boolewaale ci biir asaka ci misaal ma yor dix mille dollars sama xaalis mu yoreel ma cinq mille yoo xam te ne nii waa ji xam naa ne dana ma fay su may génnee asaka quinze mille dollars laay génneel asaka income tax yooyu nag yow xam nga ne ñu la koy dagg te bu weer wi deewee wala bu at mi deewee nañ la ko jox am na mbokk moo woon naan ma nañ la jox waaye ñaare doo xam ñaat lañ lay jox waaye ala kulli xaal liñ lay jox moom faaw mat faaw mat nisaabu asaka maanaam mu ëpp ko dañuy wax waaye dafa mat bu ko matul matu ko ala kulli xaal waaye boo xasee mat moom xamal ni alal la joo xam yaa ko moom te am na at fa mu nekkoon fa mu tëddoon war nga caa génne asaka xam nga ni un million bu nekk vingt cinq mille wax dëgg lislaam lislaam solul kenn kon génne ko ngir mu barkeel génne ko ngir maanaam alal ji tamit bañ laa lakk bu ëllëgee kooku moom moom la fi lislaam jàngale boo demee ci téere bi ñu wax alxalaal wa fiqhu zaka bu yusul xarabaa yi da nga fa fekkee détails yooyu noonu ñu ñu la leeral wallahu taala alam jërëjëf imam yaakaar naa loolu leer na leer nañ ci wàll income tax yi kon ñu ci bàyyi xel képp koo xamante ni bii euh, firme sa income tax kon asaka da ciy war kon nag loolu yaakaar naa leer na ba tey rek ñu woyalee 212 219 96 95 212 219 96 95 ñu jël mbokk mu ci ligne bi bisimilah. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. wàññi rajo yi tuuti. waaw moom kay waay. waaw jërëjëf. léegi alal la avec boobu ñuy wax maanaam temps biñ koy génnee comme ça da ngay am léegi dix mille dollars. Mhm. après génnee ko léegi wala da ngay am léegi dix mille dollars ñu comme ça nga war ci liggéey nga dugal ko liggéey léegi nan lay alal ji di demee ba mën ba loo mën ci war ci mën a génnee avec. allo taxawal bul dem. allo waaw. comprendre ma sa laaj bi de. ma ne comme ça alaaji boo amee tey dix mille dollars exemple. boo amee dix mille dollars tey. tey jii waaw dix mille dollars yooyu nekk euh, yow ba mu mat at. Uh-huh. bu boobaa ci ngay génne asaka moo xam ëpp na ko moo xam moo xam maam dix mille bu daa jël daa wax dix mille sax moom ëpp na asaka. Uh-huh. ci misaal boo yoroon ci misaal rek euh, lu néew loola sax. loo xam mën na nisaab nga dem ci marché bi xam ko toujours day day daanoo ko jóg moo tax ci or laa jóg mm-hmm. waaye boo yoroon som mat asaka ci misaal nga yor misaal rek denc ko déwén ren ba déwén bu yokk ak bu yokkuwut yëpp dañ ci war a génne asaka maanaam bu fa alal ji toogee quoi liggéeyul dara maanaam même bu liggéeyee bu liggéeyee li ci dolli ko da nga koy booleeg la fa nekkoon lépp nga génneel ko asaka ah, bu liggéey te nga xam da nga koy boole sa compte rek bu at mi deewee da nga koy génne waat asaka ok wallahu alam ah. jërëjëf ñu jël mbokk mi ci ligne bi bisimilah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi leen di ziare waaw léegi damay laaj kon ñi nga xam ne léegi bu atum olof ni atum euh, julit ni jeexee ci la ñuy génne asaka mm-hmm. te duñu euh, wa waxtu woowu duñu fiil income tax xanaa kon mën nañoo xaar ba income bi ñëw buñ ko fiilee boole lépp génne ko asaka <laughs> waaw bu boobaa euh, ñaari ñaari solution am na uh-huh. vraiment nga xam nga sa alal ji nga yor ko atum olof mi commencé na nga xam ne kat bu income tax yi accès dinañ ma jox nangam ci misaal dañ ma jox deux mille dollars bu boobaa bu may génneel asaka ji dama ciy dolli boole deux yi nga xam te ne nar nañ ma ko jox ci income tax yi nga xam ne bu income tax yi accès ba jëlee sama xaalis du ma ci génne dara wala ba ma génneel asaka ji toog ba income tax yi ñëw ñu jox ma ko ma génneewaat ko asaka jàpp ko ñaari alal yu bokku ma amoon euh, ab ma amoon ci misaal xaalis tey am mille tey dellusiwaat ci at mi déwén ma génneel ko asaka mhm. far fi may génnee asaka pare sama mbay mi ma doon bayal daal di njor nekkaat alal ci man dama koy génneelaat asaka wala ma doon def commerce génneel asaka sama alal ji nekk sama compte sama commerçant bi may liggéeyal toogaat lu ma euh, ab diir doog a defaat réglé ma ma réglé moom damay génnewaatal asaka alal jooju boobaa te ñu bàyyi xel tamit ni asaka mën nga koo jiital avant mën nga koo jiital avant at mi jeex maanaam man ngaa mën ngaa mën ngaa jiital alal ji génneel ko asaka avant at mi ci misaal at mi commencé ma yor alal rek fekk ma dugul at sax waaye at mi rek ma ne ah naa génne wala asaka benn yoon ci alal ji ndax xuma déwén dama fekkam déet. même boo xamul ñaata lay toll yëpp moom. déet waaye bu dee ci loolu il faut nga xam pour nga mën pour nga mën ko boole alal ji ngay pour l'instant nii. il nga xam ni muy toll moom. ah ok parce que <laughs> man loo bëgg li nga xam ne moom lay laaj bu fekkente ni tam xarit la ñuy génn ci la atum ci jullit bi jeex ci la génne atak waa xam nga loolu waxin la waxin la rek waaye leen itteel mooy yow nga date ko ci ati wala fii rek waaye xam nga am na ñoo xam amuñu alal ji bis tam xarit bi am na ñoo xam te ni gàmmo lañu am ci misaal ñooñu bu gàmmo dee lañu asakaal xam nga ah, waaw waaw maam dañ cee jublu ni atum weer yi rek doo ko def atum jant bi waaye atum weer yi nga koy def maam atum jiw ji waaw jërëjëfati. bisimilah. allo. bisimilah waaw. allo. allo bisimilah waaw. ok dama leen sax pour gërëm seen xaadim dama dund sama yàq aay yi ni ma ko doon jàngee loolu maa ngi ko ci gërëm yal na ko yàlla gërëm beneen bi dama bëgg bëgg naa joxe projet bi dara léegi fan laa ko mën a joxe incha allah. boo yëgee sëñ bi rek boo yëgee ci ci kaw rek incha allah. waaw ah, parce que man nag guddi lay liggéey parfois balaa may gont xam gën a fekk ba léegi wala parce que damay gont waaw xanaa kon nga woo Serigne Saliou Samb rek bu ko defee boo ko woowee moom foo nekk dina la fekk bu soobee yàlla. waaw ñu ngi gërëm sëñ bi baax a baax yal na ko yàlla gërëm. amiin amiin jërëjëf. bisimilah. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw ñu ngi jokkuwaat ci laaj bi rek euh, mbirum asaka income tax bi. Mhm. dañu bëggoon mu leeral ñu euh, bu fekkee da nga ko jot nga am ay bor. Mhm. boo fayee bor yi ba pare li nga defee ndax da nga ciy génn ba tey vingt cinq pour mille boobu. ak vingt cinq pour mille bi ndax mën nañ ko expliquer ci dollar wala il faut ñu jël li ñu amee convertir ko ci CFA après génne vingt cinq ci CFA li ngay def rek mooy da ngay dem ci marché ba laaj or lu muy jar après ci ko ci or bi da nga ko mën a xamee. waaye ci misaal bu ñu nee mille yi nekk vingt cinq dollars loolu rek la ñuy wax boobaa. waaw waaw léegi ndax tamit euh, boo la fekkee nga amee ay bor. waaw da ngay fay fay bor yoo pare yoo génne asaka. bu fekkee nekkul bari pexe nga xam ne da ngaa compolo waaje rek misaal daal ne ko naa naa lebal lebal ma nangam ma téye fekk mm-hmm. ajowoo ko sax waaye bëgg rek maanaam pour wane bëgg génne asaka rek moo tax bu boobaa lislaam moom xamut pexe yooyu du ko bàyyi xel wax rek ni war ngaa génne asaka bu boobaa waaye bor moom mm-hmm. da nga koy fay ba pare mm-hmm. doo génne asaka daal loo defee bor yu tàmbali woon koy sa at ba bor yu dëggantaan léegi nag boo fayee ba pare li la defe nga xool bu fekkee bu na taux bi war a génne asaka génne ko bu mësul nag asaka waru lii lii mat asaka nag ndax mën ngañ ko laa lay wax naan la toujours day aju ci fi wéccé or bi toll da ngay dem laaj ñetti ñetti commerçant. Mhm. ci or bi buñ la waxee nga jël prix bi gën a bi gën a bi gën a digg doomu ci nga koy xamee booba ay calcul lay doon yoo xam te ni ci lañ koy def. bu dañ ko indiwaat ci émission dañ ko indiwaat déggoo li ma wax maanaam il mhm. faut nga dem ci marché ba laaj jaaykatu or bi li muy doon. bu fekkee quatre vingt cinq grammes ci misaal mat na ko mm. bu boobaa nag mm. ngay génnee asaka waaye il faut ñu xam or bi fi toll tey ndax day daan mm. tey day daanu bu subaa mu daanu ñetti commerçant ngay laaj bu ko defee boo leen laajee bay wax ne nangam bii da jël bi gën a diggu doomu waaw léegi ci émission yi di ñëw incha allah dañ ci gën a leeral comme ñu toll ci jamono jooju nañ comme ni ñu ko defee woon daal dañ indiwaat beneen bunt ci buntu asaka ngir jàngale ci loolu lépp incha allah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah

waaw mm, tontu la maanaam li ma bëgg a waxtaanee si mooy li ngay li am pour xam ñaata nga war a génne asaka kooku la ñuy laaj ci marché bi waaye boo xasee am ba alal jooju ba pare nag 1000 dollars yi nekk 25 nga ciy génne comme ñu ne 1 million bi nekk 25000 tamit. jërëjëf imam euh, xam nga mbir mi yombul li may wax nii ndax yu bari sëñ bi jàngale na ba pare ñu du ko laajaat li mu jàngale. Mm-hmm. <laughs> ñu ngi koy laajaat ci di ko jàng li mu jàngale ba pare ñu di ko laajaat plusieurs fois. moo ah, tax tam da ngeen da ngeen da ngeen da ngeen foog eh, boo xam ni sëriñ bi da ngeen koy bàyyi di ko may eh, kii pour mu mën a nooyi aussi pour mu mën def préparation yi ñun tam di jàng bu baax a baax a baax bañ a mel ma xam ne mu nekkul xëy na eh, wax ñu déglu ko noté bañ a ñëwaat bi jàngale di ko wax ki wax ko keneen waxaat ko keneen waxaat. jërëjëf jërëjëf Damel jërëjëf xër gi xër gi lépp ci xër gi rek jërëjëf jërëjëf sant nañu baax baax jërëjëf jërëjëf. bisimilah. waaw kon kon euh, yaakaar naa ne euh, loolu lépp leer na kon ñu wéyalee rek laaj na loo jërëjëf euh, sëñ maam ñu ngi siyaar baax di siyaar mbokk mi nga xam ne si moo génn léegi di wax ni daa bëgg a barkeelu ci rajo bi sëñ Xaadim ñu teg si fii ni dañ cee a barkeelu daa bari waaye ñëpp nañ xam ni mooy jëwriñ ji sëñ Xaadim ñu jiite fundraising bi bii di ñëw dina ci def waxtaan bu yaatu waa kër Sidi El Hadj Malick ñu lay sant bu baax di la gërëm it suñ bàcc ñang ak soxna Kiné Mar ñoom ñu ngi lay sant di la gërëm nee na ñu ngi teewlu jataay bi di xaddara ci restaurant waaye noonu la ko soxna Faa Mbow waxee moom it nee na ñoom it ñu ngi teewlu di rafetlu xam-xam bi bu baax yàlla leen yàlla fay waaye imaam kii nga xamante ne nii nee na yaakaar na ni asaka war nga ciy ñëwaat bu baax ndax gis na ni maanaam ba ko commencé di déglu ci rajo yi di ko ci génne nga wax ko daaw mu jàpp ko nee na gis na avancement bi bu baax a baax a baax ki ci des dani moom wax dëgg nee na mille dollars yu fekkee daaw du ko yor daal ndax moom dina génn asaka wala du ko génne bisimilah Cheikh. ne ko day génne de yow xam naa ne kon mille dollars waaw moom ko waaw man de man de Oumy soxna Oumy wax man la loolu loolu sëñ boobu waxoon moom laa doon sax bëgg a jéemoon doon waxaan sànq xam nga wax yombul tamit nit ki tamit di dépense énergie am ñëw wax ba pare nga ñëwaat di ko wax loolu tamit loolu tamit da koy xaw a sonal daal te wax bi yombul pour ñu xaw a noppal suñu imaam rek macha allah jërëjëf. jërëjëf soxna Oumy. waaw jërëjëf jërëjëf soxna si kon yaakaar naa ne. waaw. kon ba tey rek ñu mm. waaw bu fekkee ne am na ñoo xamante ni bi ñu ngi teewlu waxtaan wi euh, waaw kon euh, bis ñu ngi euh, mbokk mi ci nit ñi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum dafa am laaj boo bëgg a laaj lu jëm ci wàllu asaka ak bor. tey mm-hmm. su fekkante ni damay génne APR. Mm-hmm. ma xool ni bu ma liñ ma amee ay bor mat na dix mille dollars. Mm-hmm. léegi su ma demee bay génne APR ma boole bor bi ak li ma war a génne. léegi su fekkee ni damay def chaque année. ma koy ma koy booleeg li ma war a génne APR ba mu mat lu mat ba mu dem lu mat cinq ans six ans te dix mille dollars yooyu ñooñu ma amee leen bor. fayuñu ma. waaw moo tax damay continuer di ko génne wala lan bor bi nga xam ne yàgg fa bàyyi nga xam ne boo nee borom indi mu jox la bor boobu la ñuy limaale ci asaka. bor boo xam maanaam mu jox la. maanaam boo xam te ni boo boo ko fayu ko borom mu fay la ko. moo tey par exemple mun na ñëw ni ko boo dama ñëwoon di fayee ko bor li mu amee. Mm-hmm. mun la wax waaw dinaa la fay. te fi mu ne nii yore fiq moom régal bi mu joxe mooy bor boo xam ne boo ko fay ko ñu fay la ko da nga koy limaale ci asaka. waaw fiq moom loolu la ñu wax. maanaam xam nga la yore gu woon yàlla ma ni léegi nga dem ba mat cinq ans. Mhm. da ngay jàpp ni yow. balaa cinq ans yi balaa cinq ans yi. bu la ko defee ren benn date boo xayante ni su ci àggee yow. ma ni loolu war nga ko a bañatee boole ci. xam nga bu la ko rek def li ko déwén war ngaa mën a xam ne kon bor bi kii dootu la ko fayati bu baax doo ko limaale. Ah. doo ko limaale waaw ah, ok jërëjëf borom da koy fay rek ñëw limaale. incha allah jërëjëf ñu ngi bëgg ci waxtaan bi loolu. jërëjëf jërëjëf kon tuuti ndax li des ci ci des ay simili bariwul bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi ziar. ñu ngi <laughs> Ah, eh. e waaw eh, dafa la waxtaan rek. macha allah lii di loolu rek kon tontu leer nañ ñëw su ma defal jàmm ak tawfeex rek. amiin Mbacke Bane amiin. jërëjëf ñoom ba tey dara li waxtaan wi yàlla xew. sant baax nga toog ba heure bi nelawoo ñu dugg ci Sénégal. yal na yàlla fay Mbacke Salom Fadil Salom. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. man dama laaj ki nga xam ne am na alal joo xam ne daf teewal bi am bor yoo xam ne daf ko war a fay te fayul bor yi génnewul asaka wala mu bañ a fay yi ba pare génne asaka ba pare te waroon a fayal borom ak luy abaat day taxawal laaj moo tax yu bokk asaka moom dafa war nga génne ko am maa fay bor ñàkk fay bor moom kooku beneen buntu moo tax waaw man maa bor am naa bor am na lu ma cinq mille dollars mhm. amee war a fay bor boobu ba pare door a génne asaka waaw da nga ma sax da ngaa boole ñaari bakkaar yor nga àq doomu aadama ba yàlla mu fay bor bi na bañ a da ngaa yor ñaari da ngaa def ñaari bakkaar laa wax ngaa yor ngaa fay borub jàmbur ba pare fayoo borub yàlla borub yàlla waaw kooku yaatu leer na jërëjëf bisimilah euh, yoo xam ne te maanaam boo waxtu fay nga jot. li nga yor moto wala sëb dund yow naka a def. maanaam njëriñoo maanaam daal li am lépp daal si dund rek la jëm. waaw. doo fay asaka jot. lan jot. am lépp ci dund lay yem. ba fay asaka jot. fay asaka waaw waaw. léegi ay fay amoo loo gën asaka faqiir nga. dama dama nga dem ba nga xam ne fay asaka ngi jot. dem ba fay asaka yu waxee asaka la wax nga dem ba génne asaka jot nga wax. waaw waaw léegi. Mhm. léegi nga ñëw ba war a génne asaka di jot nga am loo am ne ba nga ko xoolee ci dund la yem ndax da koy génne asaka wutaal leneen wala da nga koy. xam nga laaj pour ñu comme ñu mën a tontu dëgg dañuy comprendre laaj. maam alal ji bu fekkee dafa ñëw tey nga xool nga xam ne moog sa dunday tolloo tey laa am xam nga alal ji alal ji nga war a génne asaka day am at ak yow ba pare day am a yow at ba pare nga doo ko gën a génne asaka il faut mu am at waaw waaw kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp daanaka waxtu yi jote eh, baax a baax ci suñu eh, rëq-rëq ñu am ci Bichri TV waaye incha allah rabbi dinañ ko rediffuser léegi waaw ndax eh, ñu ngi koy enregistré waaye ñu ngi koy rediffuser waat ñëpp seetaan ko kon ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp ci woote yi ak ñu teewul yëpp eh, di leen jéglu baax a baax ci lépp rek waaw suñ saalum ñu jox la nga eh, jotale loolu bu ko defee ñu jox suñu xaadim rek mu tëj jërë ngeen jëf. waaw suñu xaadim la loolu ñun ñoo koy sàkku doo mu jërë bi day mel ni képp ku nga xamee sëriñ yi daal te ndigal leen sëriñ xaadim alaaj sëriñ loo ñoom képp ku am lay joxe boo demee mat la bul foo sëñ boo bindee sa tur bind ko fa ci rajo bi ñu ngi ko ci sàkku nii ñu ko fonk ñëpp jàppe ko ni boo ci bindee sa tur boo fa jaaree des na la ko yóbbul fi ñu xam ne fa lay jëm képp koo xam ne jaar nga naaj naaj seen sant seen fànn Modou Gaye boo fa jaaree boo fa loo fa bàyyi des na ko indi palaasu Cerno Sekk kasaalika naka noonu ba baaba baab ba ci restaurant kenn ñoom soxna Fane ñoom ñëpp ñi nga xam ne seen ñu ngi ci bisimilah kon sëriñ Xaadim ñëpp a ngi déglu ci tàggatoo bi ba alxames ak ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla liñ fi wax lépp lu ci jub rek mu bindal ñu ko tuyaaba dencal ñu ko ba ëllëg lu ci jubut tamit mu génn ñu ba bu ëllëgee ñu jubal ko di sant bu baax a baax suñu xarit suñu Abdou Lahad Mbacké nekk Sénégal bis bu set émission bi du ko raw waaye yu commencé mu envoyé message ne maa ngi koy déglu lu rëy la ñun nag ndax Cheikh Sëriñ Cheikh Mouhamadou Fadal la di loolu suñu jiiri sant bu baax a baax ci li nga xam ne noonu lay taxawee di ànd ñun ci liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh